ak ñaar ci ay magistrat l'observateur ak Vox Populi nee na Souleymane Téliko bi ñu ko digloo ba pare dañu koo blâmer dañu koo xamal na ko yaa tooñ yéen kaay gi di Vox Populi nee na nag magistrature bu Sénégal dafa am anam boo xam ne moom la yëkkatee ay daan di ko lal ci ndoddul magistrat yi nga xam ne ñooy def ay njuumte am na premier degré am na deuxième degré yéen a kaay gi nee na Souleymane Téliko dañu ko teg ay daan daan yi ñu ko teg premier degré la ndax bu doon deuxième degré man na nga toog ay weer wala ay at yoo xam ne doo liggéey ci magistrature bu Sénégal wala ñu teg nekk sa ndombay tànk yéen a gi mu ñu xamalal ñu Souleymane Téliko ñi nga xam ne ñooy ay avocat am ak magistrat yi nga xam ne ñoo ko doon layal ñoom nag daan nañuy saisir cour suprême ndax ne na ñu mbir mi bëgg ñu benn yoon mu sedd bëgguñu ko bàyyee noonu kuréel gi nga xam ne moo ëmb magistrat yu Sénégal jamono ji mer nañu ba maara détaali yéen a kaay gii de laas ñu xëy fekk fa Souleymane Ndéné Ndiaye mi nga xam ne ay jamono moo fi nekkoon premier ministre bu Sénégal démb daat nañu koy laaj na ko Souleymane Ndéné Ndiaye gis nañ ne mbëkk mi bëri na bëri na ci réew mi xale yoo xam ne amuñu am xëy la mu tonto moom Souleymane Ndéné Ndiaye nee na politique bi nga xam ne Macky Sall teg na ko état bu Sénégal jëm ci politique ngir ndaw ñu am liggéey li mu gis mooy dafa lajj dafa lajj ba juutu noone la ko Souleymane Ndéné Ndiaye gisee nee na lajjite gi nga xam ne état bu Sénégal lajj na ko ci lu jëm ci emploi des jeunes loole moo tax ndaw ñu bëri di jël gaal gi di dem ca bitim réew ay yéene gi di libération mu ñu xamal la ñu musa Moussa Diop mi nga xam ne moo jiite woon Dakar dem dikk jamono ji ñoo ngi koy lëmbat ni nga xam ne moom la yore woon kër googu di Dakar dem dikk yéene gi di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu lu toll si ñaar fukk ak ñett ci ay doomu réewum Côte d'Ivoire ak Nigéria yoo xam ne teg nañu leen loxo ci aéroport international Blaise Diagne ndax dañoo yoroon ay faux test Covid 19 libération yéen a kaay nee na 23 personnes yooyu jamono ji ñoo ngi càb garde à vue yéen a kaay gii de Les Échos mu ñu xamal lan ñu démb ci assemblée nationale Serigne Mbaye Thiam mi ñu dénk wàllum ndox mi yekk nañu ko musiba ak mbelengaan ndax Serigne Mbaye Thiam doonoon wax ne ñàkkum ndox gi ci réew mi waa kër Abdoulaye Wade la Mame Diarra Fam bokk ci waa kër Abdoulaye Wade démb tontu na Serigne Mbaye Thiam nee na ko ko parti socialiste def nañ 40 ans ci Sénégal buusuñu paasuñu demuñu céng dikkuñu mbay laaran li nga xam ne moom la parti socialiste def ci 40 ans Abdoulaye Wade si ñetti at rek la ko def Maam Jaara Faam ne bay Mbaye am bu ngeen lajjee ci lu jëm ci wàllum ndox mi maanaam nangu leen ko waaye yomb na lool ngeen lajj ba pare di wut fu ngeen wéeru di tuumaal maître Abdoulaye Wade yéene kaay gi ne na Serigne Mbaye Thiam démb député yekk nañu ko musiba ak mbelengaan moom ak waa Sen'Eau ci ñàkku ndox gi am ci réewum Sénégal ak nag facture yi nga xam ne cher na ba jéggi dayo yéenekaay gi du source a mu ñu xamal la ñu démb Abdou Karim Sall mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum environnement moom tim démb yekk nañu ko musiba ak mbelengaan ci assemblée nationale dañu ko doon kekkantoo di ko njaay cekkee ci lu jëm ci wàllum kéwél yi nga xam ne moom lañ koy tuumal ne daf koo daal di lekk Serigne Abdou Bara Dolly daal di wax ne Abdou Karim Sall bu ngeen gisee tekki ñu ndombal tànkama mooy kéwél yi mu lekk ndax ci lu leer ay kéwél boo ko lekkee say ndombay tànk ci loo mën di yëngu duñu ko gaaw a tekk jàpp naa ne sax Macky Sall ca kéwél yooye la lekk kàddu Serigne maara dooli la yéen a kaay gi mu ñu xamal lan mbirum kéwal yi nga xam ne Abdou Karim Sall ñoo ngi ko si tuumal ne daf koo jële woon ca Ranérou démb waxtaane nañ ko sa assemblée nationale sulli nañ ko fa waaye nag moom ministre bi doon na fente Toussaint Manga na ko ministre bi lu ñu bëgg xam mooy situation bi jamono ji fan la toll ci kéwal yi yéen a kaay gi ne na député yi nga xam ne ñoo bokk ci ku jigi li ñuy sàkk mooy topp gi nga xam ne ñoo ngi ko doon topp Abdou Karim Sall ci wi nga xam ne moom la doxee woon ak kéwal yi ñu daal di koy yeggale yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy nag di wax ne si Sénégal Sénégal ndax nit war naa jekk-jekk créer ay takk deru boppam comme ni ko Serigne Moudou Kara amee maître Assane Dioma Ndiaye nee na lu nit di teg ci réew mi ak lu mu mën di doon dafa war a méngoo ak yoon Sadiq Niass bu rado moom tim noonee la ko gisee nee na li nga xam ne moo dul yoon tegewul fenn nit jekk-jekk taxawal ab milice privée yéenekaay gi di Rewmi Quotidien 24 heures Vox Populi Serigne Moudou Kara li mu sant ay taalibeem na ñëpp noppi kenn bu mu wax yéenekaay gi di Dakar Times ne Serigne Moudou Kara ak li mu def lan moo ko ci mën fekk yéenekaay gi di La Tribune tribune ñu xëy jànge fane am na ñaari milliards yu faux yoo xamante ni teg nañu ko loxo bi ñu ko xayma mille trois cent milliards la yéen a kaay gi ne na am na ñaari commerçant yu siiw a siiw yoo xam ne ñoo ko sa teg nañu leen loxo ak ay mbàkke-mbàkke yéen a kaay gi du l'observateur nee na deal bi nga xamante ni moom la ñu doon def a ci lu jëm ci wàllum faux billets yi lépp nag ñoo ngi ko tëggee ci benn bijouterie boo xamante ni ma nga sa Tuuba journal bi nee na ku ñuy wax Mamoun Diop ak Mamoun Ndiaye ak Serigne Saliou Mbacke ak Modou Touré Ibrahima Diakhaté ku ñuy wax Fatou Mbacke ak maam Dame Mbacke ñii ñëpp tudd nañ leen ci mbirum faux billets gi teg nañu leen loxo yéenekaay gi di Rewmi Quotidien mu ñu xamal nañu Pape Bouba Diop ginnaaw bi mu génnee àdduna ca Paris la France niki suba ca àllarba ji ab néewam danañu ko andi ci réew mi stade yéenekaay xëy ci Ligue des champions yi nga xam ne tey ji match choc am na diggante Atlético ak Bayern Liverpool ak Real Madrid bu ñu gagné qualifié ci huitième de finale yi yéenekaay gi di sunu làmba ñu fekk fa ñoo ko bàyyi daal nay wax ne Modou Lo jamono ji ma ngi ci forme ma ngi ci confiance Ama Baldé am na client